nguuru Sénégal nag euh, dina topp ci yoon entreprise chinoise bi nga xam ne kon moom lañ dénkoon liggéey boobu nga xam ne kon ñu ngi ko doon def fële ca brèche bu Saint-Louis dragage bi ak balisage bi def kon euh, ci brèche bu foofu ci Saint-Louis. te nga xam ne kon entreprise chinoise yi daal dañoo dem ba ci kon euh, digg ba ñu bàyyi liggéey bi. ndax ñoom dañoo xeeboon kon sept milliards yi nga xam ne kon moom la état du Sénégal dégagé woon pour yooyule liggéey bu ñu sukkandikoo nag si ministre de la pêche di Alioune doy moom nag nee na euh, li nga xam ne mooy euh, dossier bi sax kon mu ngi ci mu ngi ci loxoy euh, agent judiciaire bu état bu Sénégal ASC Jaraaf nag nga xam ne kii di lamin Diack nekkoon na fi seen président kon mos na fee nekk seen président Lamine Diack ñoom waa ASC Jaraaf nag ñoom dañoo engagé wu kon dañoo fas yéene daal dajale lu toll ci 327 millions ngir fay amende bi nga xam ne kon lii di justice française amende ko kii di Lamine Diack ñoom nag dañoo fas yéene fay loolu ngir permettre lamin Diack kon mu mun a jóge France kon ñëw fii ci ñëw fii ci Sénégal démb nag gannaaw bi nga xam ne ñu ngi amal ab assemblée générale ci lañ xam ne daal ñoom fii ak 15 daal fii ak fukki fan juróom kon dinañ dajale. cinq cent mille euros yooyu te te war a nekk trois cent vingt sept millions ci franc CFA pour permettre kii di lamin Diack mi nga xam ne kon mu nga foofule ca France gannaaw biñ ko àttee euh, te ñu koy tuumaal mbirum ñu te ñu koy tuumaal kon euh, lii di mbirum euh, corruption passive ak active ak abus de confiance. syndicat enseignant yu Sénégal li nga xam ne ñoom dañoo bokk ci G20 ñoom nag. àllarba bii ñu dëgmal kon euh, dinañ def débrayage ci ëllëg sa tam di jeudi fas yéeneen def lii di grève général ñoom nag li nga xam ne daal ñu ngi koy ñaxtu moom mooy ay lenteur administrative maanaam nguur gi ni muy yéexee euh, ci seeni ki waaw nguur gi kon nguur gi daal ni muy yéexee kon ci seeni mbir ak itam âge yu retraite bi nga xam ne kon dañoo bëgg ñu yokk ko loolu bokk na kon si li ñuy ñaxtu ba tax na kon ñu ne dinañ banque seen loxo euh, mercredi bu 9h jotee ak itam grève générale ëllëg sa di bu ñëwee nag si jàngale coronavirus ministère de la santé bu Sénégal tey annoncé na 51 cas yu bees mu ne it euh, wante am na kon 70 yoo xam ne kon wér nañ mu ne ci kaa yu bees yi 51 cas yi 10 euh, yi ay cas contact la 40 yi di ay kaa communautaire euh, ca geneen wet gi nag am na 19. cas yoo xam ne kon fi mu nekk nii ñu ngi ci réanimation ñoo xam ne kon dañoo seen wér gu daa sooxe lool ba sax ñu ngi réanimation wante itam démb am na ku ñàkk bakkanam te li ko sabab di jàngoro coronavirus bi fi jàngoro jógee ba léegi nag ci Sénégal euh, toll nañ si 39 782 cas positifs 38 511 jot nañ cee wér 1091 ñàkk nañ ci seen bakkan fi mu nekk nii am na 179 patients yoo xam ne ñu ngi sous traitement bu ñu paree Sénégal xibaaru Afrique la dem. waa croix rouge nag ñoom daal dañoo jaaxle kon dañoo jaaxle ci blessé ci maanaam ay nit yu am ay gaañu gaañu yi nga xam ne bëri na lool fële ca nord Kivu fu ñu wax province nord Kivu te nekk ci république démocratique bu Congo loolu nag mu ngi am gannaaw ay manifestation yoo xam ne kon ay nit ñoo ko fay amal ngir daal ñoom dañoo bëgg lii di mission ONU ba mu jógee foofu la ca dëkk ba gannaaw bi nga xam ne kon nit ñooñu jóg nañ di def manifestation yi daal contre mission ONU ba fa nekk dafa amoon kon ay jàmmarloo ba sax am kon ay nit yu bëri yu si am ay. Euh, ay gaañu gaañu waa Croix Rouge nag euh, jóg nañ kon ne dañoo tiit ci mbir moomu te jaax jaaxle nañ si lool fële ca Mali nag euh, ñi ñuy wax ay chasseur maanaam sàmmkat dozo ak itam ay groupe armé yoo xam ne ñoom ñooy waa Kataba ca Masina ñoom nag dañuy xeex ñoom fan yi ñu génn daal ay xeex daal ay xeex yu métti métti lañ fay xeex ci fi ñuy woowee jenne cercle jenn daal moo waral xeex boobu kon seeni diggante foofu la centre Mali Euh, ba sax euh, seen xeex yu mujj sax jot na fa def lu bëri kon ci ay doomu aadama yoo xam ne kon euh, ñàkk nañ ci seen bakkan mu amit ay dëkk yoo xam ne dañ koo lakk amit ay nit yoo xam ne dañoo mujjee sax kon daw làqu dañ koy jeexale Cap Vert bi nga xam ne kon bésub tey bii la ñu amoon lii di seen élection législative électeurs yi nag kon war a fal lu toll ci soixante-douze membres bu assemblée nationale ba ba nga xam ne sax kon kii di chef gouvernement ba kon ci assemblée nationale boobu euh, la bàyyeekoo euh, Cap Vert nag nekk na dëkk boo xam ne kon euh, pays lusophone lañ koy wax moom nag bokk na ci CEDEAO wante it foofu daal nemmeeku nañ fa ak dal ci wàllum politique kon nekk na sax exemple ci alternance démocratique ci Afrique leen ñu tey ci xibaar kon rafetlu seen taw leen jox daje ëllëg jaa ngeen jëf.